président ONG Jamra euh, ginaaw ban ko dalalé ginaaw bu mu nuyo nak légui ñu soobu ci waxtaan wi di am mbégte nak à chaque fois bu ñuy dajé ak mom pour plusieurs raisons moy euh, des fois je me pose des questions comment il fait pour euh, être présent dans toutes les émissions hein? euh, kon laaw la chat? yàlla nga yag diko ko yalla nga yag diko taxawé parce que loolu engagement la mais aussi une ponctualité bobu yombul ci nit c'est très difficile mais yang koy matal mais Mame Matar question bi moy alarba ji ñu jëm daa am lu ñu jàppoon mooy li jëm ci criminalisation euh, lii di euh, mbiri góor jigéen ci Sénégal ngeen ci yàgg ciy dox léegi nag dox boobu yóbbuwoo leen àllarba mais àllarba ji dafa am jiixi jaaxa parce que euh, ñu ngi dégg ñu naan loi bi àllarba lañ ko bënoon dugal waaye am na ñu ne loi boobu mënut a dugg àllarba parce que lan waroon a matal ci député yi waroon a teew waaye tamit lan waroon a matal ci ay kilifa yu gàddu loi boobu dafa matul moo tax dañ ko bëttal ba jëmi jamono léegi nag mu am ci ay kàddu yu jukka ndaxte Babacar Mboup de nañ ci Wal Walfadjri invité de la rédaction mu reporter nan ko mais da ngay dégg yenen kàddu sen bir yi ne alarba ji japp nan ko ba tay ji fan ngeen tollu ci loi boobu. ni ko mag ñu bax ñi di waxee léeg-léeg suñu borom buy defar day mel ni ku yàq. Mhm. li jur tay suñu lëkkaloo bi ak suñu benno bi. Mhm. mooy jàmmarloo bi fi doon jamarlo en janvier 2018 ak 600 mhm. loges maçonniques. yu ñëwoon fi ne jamet ne par force ñu def congrès les 2 et 3 février 2018 ici ci King Fahd Palace. Mhm. alors ñu ne nag lii mënatul nekk xeexu jàmm rek comme en 85 bi ñu fi jàmmaarloog ñoom. Mhm. ba ñu intenté woon ñu un procès nous ñu gagné ko. Mhm. ci ndimbalu maam Abdoulaye Sy Dabakh ba tey xutba anti franc sur bi mu defoon mu ngi ci youtube bi ba tey. ci ndimbalu sëñ Abdou Aziz sëñ Abdoul Ahad Mbacké ak Baye Seydi Thiawlaay boobu ñun kott la woon ak yàlla ba niñ ci amee ndam waaye bii 600 loges la. ñu ne kon booloo mooy doole alors yàlla dogal nag ñu daal di daje fële ca daara oustaz Adama Seck le vice président de la fédération des associations des écoles coraniques mm-hmm. nas fa lu ñuy wax non à la franc-maçonnerie à l'homosexualité noonu la jëkkoon tudd mm-hmm. boobu tuddoogul ànd sàmm jikko yi ñu daal di programmer nag bés bu mag a mag a mag muy le trois euh, mais bi passé mm-hmm. pour def benn ngandam démonstration de force. Mhm. pour wane ne wan Sénégalais yi ne ñun ñii daje fii yëpp ñoo bokk lu ñuy bëgg. Mhm. bokk lu ñuy bañ. Mhm. li ñuy bëgg mooy sàmm ak aar ndonul lafet li fi mag ñu baax ñu bàyyi. ñoo bokk li ñuy bañ mooy lépp luy yàq jikko yi. ak lépp luy tilimal malaanul islaam. mu nekk nag succès bu rëy rëy loolu moo ñu encouragé nag ñu daal di soppi tur bi tuddee ko ànd sàmm jikko yi. yokk nañu légui nak parce que ñu ngi déparé won 34 bañuy ñuy formation yi légui dem nañ ba 106 organisations waye li ma ta du ay daïra rek ak ay organisation islamique comme Jamra nous avons des personnalités de la société civile damboj jitéwul y a des ONG islamique c'est un leader syndical mu ngi ci biir jikko yi le professeur Malik Ndiaye l'éminent sociologue Euh, euh, moom tamit mooy euh, njiitu CIS. Mm-hmm. le comité des intellectuels du Sénégal mu ngi ci biir ma soxna kan mm-hmm. avocat mm-hmm. moo jiite SOS Consommateur mu ngi ci biir donc yaatu na askanu Sénégal ñoo fa daje alors léegi nag ñu daal di seet ci suñu biir koo xam ne doy nañu ci teyam ci yaram tegginam ak xam-xamam di Ababacar Mbuub Nous dit que nous sommes suñu coordinateur. Mhm. ba pare nag nous sas première mission Nous mhm. avons na une délégation def le tour des 45 départements. Mhm. eggee suñu pour que mbirum borom ñaari tur yi ak seen tooñ yu tar yi. ñu alors nous nag organisation des droits de l'homme yi ne c'est une forme de stigmatisation et d'acharnement. contre une minorité sexuelle je minorité sexuelle. Mhm. té ci droit de l'homicide euh, minorité mhm. le meilleur service que vous puissiez rendre à une minorité. c'est mhm. ngeen wax éviter de provoquer une écrasante majorité. majorité oui. ndax ñu ngi togn bu tedd bii di cimetière musulman l'a xam nga dañ depuis 74 euh, euh, ko. gardien bi jékki booru timis rek tëgg a gémmiñ ngi yuuxu génn mhm. ñi naan dafa jommeeg dafa nangam ak nit ñi wër ko lan la mënul sax war ndax appaat mu ne dem leen ngeen xool mhm. nit ñi dugg fekk juste saay-saay yi di solaat seen booba di takkaat seen i tubéy mhm. ñu nga nekkoon ci benn armeelu nitu yàlla bàmmeelu nitu yàlla boo xam ne teggin mayow sama di ko tudd fii di fa def seen yu bon. mais on a dañoo am contrainte tout temps mais dama bëggoon ñu ñëw ci loi bi directement ah. parce que loolu c'est du déjà dit quoi. Ah. jotoon nañ ci wax. Mm. Ah, répété nañ ko plusieurs fois mais ngeen ñëw ci àllarba gi est-ce que loi bi day dem duggi assemblée wala bu dee dafa am blocage lan moo ko bloqué quoi pour ñu. waaw loi bi. parce on a peu de temps quoi. waaw loi bi euh, àllarba lañ koy yóbbu waaye li waral ñu war ko yóbbu àllarba. Mhm. Euh, defuñu ko comme ni droit de l'homme si pour euh, acharner wu contre qui que ce soit moo tax ma jukkil la rek benn wala ñaari tooñ. waaye kon finalement àllarba dina dem loi bi. waaw euh, information bi nga joxe l'as mhm. l'as la génnoon l'as dafa il n'y a jamais eu de report. mais moi j'ai écouté Babacar Moupark m'a fait def journal que mu wax sur invité de la rédaction à Wolf. waaw lu mu wax man suivre naa ko mu ne parce que li mu waroon am ci nombre député ak nombre de dignitaires yi waroon gunge loi bi matul ñii danoo voyagé daal euh, ut na ay prétexte wax parce que bëgguñu loi bi déposer ko de manière ordinaire daal jox ko euh, déposer ko assemblée dañu bëgg euh, coordonnateurs régionaux yu ànd sama jikko yi mm-hmm. ku si nekk ñëw bëggoon na nañu tamit kilifa diine yi ko signé

l'honorable député Cheikh Bamba Dièye ak Cheikh Aliou soire waaye maa ngi jégalu nag ci yeneen député yi ñëw ci ginnaaw yi te jotaguma liste bi euh, Ababacar Mbuuba ko yor voilà su ma ko yoree nag après dañ def communiqué leeral euh, liste député yi nga xam ne euh, do am na ay député APR yu ci waaw yoo xam ne kii am na ay député ñooñu ñan la waa bàyyi bàyyi bàyyi nañu quatre yu ñëw kan yoo xam ne APR lañ jógee ñëw nañ wàllu si léegi nag maa ngi xaar Babacar jox ma liste bi à Babacar mhm. bu ko defee ñu mën ko siiwal mhm. pour xamal euh, askan wi ne boobu ba léegi kat dong ñoo manifesté gum non kat yi ma la wax moom c'est déjà acquis c'est officiel waaye ñi ñëw ñi ñëw wàllu si mhm. euh, ëpp nañu diis waaye pour bañ a juum may bàyyi ba Ababacar Mbour bi nga xam ne moo doon wax ak ñoom su ma ko joxee après nag dinañ def beneen communication

Euh, euh, député moko ko déposer a déposé. Mhm. te yàlla dafa dogal bi Abdou Latif 2008 ba léegi mom le ñu déposé projet lone projet de loi 2007 31 bi criminaliser le délit de trafic de drogue. Mhm. amatu ñu député assemblée nationale. Mhm. kon foog ñu waxaale ak ay député. yu nangu porter cette loi. kat yoy nak moy ñi mais parmi les députés il y a Ousmane Sonko. non kat yi ma la wax. non damay laaj ndax Ousmane Sonko signé na ko parce que ah, parce que bi ngeen mu def rassemblement teewoon na te ñu bari tey ji bu ñuy wax euh, ci xeex boobu euh, bokk na ci ñoo xam dañuy xaar moom position parce que am na popularité bu toll noonu waaw moo tax ma ne la kat yi ma la wax hmm. mooy li wóor ba wér nii ñoom ñu ngi ñuy xaar àllarba pour ñu indi jox leen ko waaye am na une dizaine ki nga tudd léegi mën naa mu bokk ci waaye pour bañ a wax lu ma wóorul damay xaar ba Ababacar Mbuub bi doon wax ak ñoom mhm. jox ma la liste complémentaire ñu mën ko ci boole pour wane ne ñii ñoo taxaw pour signer ko porter ko mhm. défendre ko à l'Assemblée nationale waaye nag il est bon dëgg le temps bi bariwul euh, ma leeral ni que ñun liñ ci jublu mhm. mooy indi dal ci réew mi parce que xam nga tooñ bi bu demee ba tar li ñuy ragal mu jur ko affaire fayunto fayuntoo parce que dama doon lim lim sànq tooñ rek ma ngi tollu won ci armeel li mais amna yenen parce que ñom dem nañ feulé kaolak euh, goudi gu ni goudi Mawlud Nabi le 25 décembre 2015 difa tak 11 11 euh dem nañ fi ci mon Sacré-Cœur mois d'octobre. bi waxatuma la 11. comme mhm. à kaolak wala 9 comme à Mbao bi 25 góor jigéen yi don tak sëy. seen bàjjen bu góor bu ñàkk fayda bi moom moo jot a daw <laughs> waaye police euh, recherche nañ ko ba jàpp ko ndax moo fa indi yu bon yi ay euh, préservatif ak lubrifiant ki robe de mariée bague de fiançailles. mais Mamatar am na luy def actualité foofu loo xam ne il faut que ñu laal yuqu wax bi quoi ko raay mooy y a des lobbies très forts yéen jàkkaarloo la woon ak état bi mais société civile bi ONG yi mais des lobbies très forts yoo xam ne ñoom seen loi boobu ngeen bëgg a teg yéen criminalisation yi ñoom ànduñu ci ah te kii def ci benn commentaire ñëpp dal ci comme di Cheikh Yérim Seck naan non dafa nekk pour les lobby ñoom ñooy liggéey la alors que c'est un journaliste boo xam ne dafa def commentaire analyse une situation mooy Sénégal bis bu loi boobu euh, jàllee eh, ñi doon dimbali Sénégal ci biti xam ñun suñu réew yi moom ñaan ak saraxu la ñu nekk ci kanam tubaab bi ñooñu dañuy mujj a téye seen loxo te loolu mun na doon ngaañ ci koomu Sénégal mu doon une analyse boo xam ne journaliste moo ko def pourquoi mun ñu ko accepter analyse boobu ñu def mu mel ni daal benn terrorisme intellectuel la ñu teg ci kawam non kenn tegul tribunal international dafa wax xalaatam nit ñi wax seen xalaat rek. mais pourquoi ñu bëgg ko dëkkal fu mu dëkkul aussi. non dañoo wax seen xalaat ci moom. moom ni mun naa amee sañ-sañu wax xalaatam noonu la nit ñi amee sañ-sañu wax. Ah. ginnaaw bu mu xalaatee ñu joxe suñu xalaat. voilà. loolu terrorisme moom xanaa kon terrorisme lay def bañ wax bañ kenn ko wax ci ay mbiram moo tax maa ngi fàttaliku ginnaaw bu ma xalaatee man bu pourtant ngeen bëgg ko dëkkal fu mu dëkkul aussi kan moo ko yaa ngi may joxoñ bi ngay wax man maa ko dëkk fu mu dëkk c'est-à-dire que man dégg ma parmi bu yaa dàmbot ci seen kuréel la bokk mais moom dem na ba classé ko ci les lobby quoi maa maa ngi ñëw ci loolu waaye dama la bëgg wax ne bi nga ni que ngi doon bëgg criminaliser le trafic de drogue wax yi ngay wax hmm. lañ doon mënu leen ko c'est des multimilliardaires surtout le nigérien John Hobby lu ko neex lay def Afrique kenn ñemewu ko ça ne passera pas waaye jàll na def nañu li ñu war mais pourquoi ku waxul li ngeen wax rek ngeen dal ci kawam ah man mas nga ma gis ma dal ci mais yow wax nga fi ci ay député wax nga fi ci ay député nga ni lii loi bi bu dee assemblée député yi ko voté wul dañ leen di yoole maa ngi ñëw ci loolu ah alors lim lim wax la mama dar mi nga bàyyi wax mama dar léegi nag bokk ci lii waaw léegi euh, koo xam ne da ngay woote ne doomu réew mi nga il faut nga tànn nga tànn nekk doomu réew mi cent pour cent mm. wala nga nekk tubaab bu ñuul mais amul ñë amul réew mooy dem ci àddina ñëpp bokk li ñuy wax ma Matar waxuma wax yi wax de dama ne dangay nekk doomu réew mi mm. bokk ak nit ñi valeur yi mm. wala nga ren renier sa bopp mm-hmm. daal di génn xeet waaye euh, demi mesure mënul ne mm-hmm. alors exemple bi ma la ciy jox moo di xam nga France boo fa demee Et le la avec l'arrivée de Eric Zemmour xam nga le code civil français bi nga la loi Pasqua 93 moo ko renforcé euh, sur le regroupement familial dafa Haramal takanya ñaar lu ëpp benn jabar waaye français yi lu Français, waaye wax parce qu'ils sont chez eux ont le droit sukkandiku ci seeni valeur wax ne bëgguñu polygamie mhm. le 17 mai 2000 2013 euh, sous François Hollande député français ont la loi bi nice mariage pour tous manam loi buy daganal sey goor jigen mhm. lu leen way parce qu'ils sont chez eux mhm. waaye ñun amuñu droit nak étant chez nous am non réalité mhm. suñu législateur dadi nas l'article 319 du code pénal di amuñu droit ba paré bi nga xamné si amphithéâtre université la démocratie c'est la loi de la majorité Nous, ñu ko l'écrasante majorité ne pas du godigénisme. pourquoi nous, nous comme que sommes na chez eux. alors ñun dem bëgg nañu dans le monde civilisé war nañ ko daganal fuñ ko tek ba ci chantage. Mhm. chantage bi euh, bari nay exemple mais bi ci gëna Mugabe. Mhm. face à face am bu le premier ministre mhm. britannique David Cameron comme ni France dit d'ailleurs les anciennes colonies. Mhm. dans le cadre de la francophonie. les pays anglais aussi du Commonwealth. David Cameron m'a mhm. l'aide au développement va se poursuivre nous continuer d'investir dans euh, favoriser anciennes colonies nga mais na ko yow bi ngay wax li est-ce que ànd sa sago <laughs> nan ngeen di bëgg jël li gën a yées ci seen jikko mu def yiru ngóor jigéen ngeen ne ku bëgg continuer di bénéficier de l'aide au développement na ko intégré bu fekkee loolu moo nar a conditionné seen aide au développement ngeen bàyyi ñu ñuy continuer di mëq cere di dëbb mboq ni ko suñu maam yi daan defee. Mhm. ba ñun ñu judd ci ba jur ci ay doom ba day nii. ba pare nag daa daa daa di lan moo ci fekk c'est de lobby très fort li fekk Mugabe lan moo ci fekk Ouganda lan moo ci fekk Centre Afrique réew yi doon dëgg dëggalu yëpp dañoo mujj a sedd rek. Ah, alors léegi nag. mu daal di mu daal di tëj waxam. nee ko go to hell va en enfer. alors kon nag ñu profité ci Taku Show xamal mag Macky Sall ne ko. Ah. Mm. ginnaaw bi nga gàntale Obama waaw. dëgg la diw na ci confiture on n'est pas encore prêt moo tax ñun ñi dem tontu ko nekk on sera jamais prêt ginnaaw bi mu euh, Justin Trudeau nako jëfé mom sax ca ñooñ la bokk de jëfé bi moy na and ci mm. démarche and sama sàmm ji ko ñu mm-hmm. criminaliser mbir mi ndax lobby yi may ko jam mm-hmm. parce que mom euh bi fi UNESCO défé toj toj bi mm-hmm. euh moy sen projet bu bon bobulé mm. naan dañu bëgg a ci njang mi mbirum

man ci delo delloo sax Dame parce que Dame Mbodj rajaxe plateau télé bañ ko xeexee hmm. mu tombé 31 décembre yéen taskatu xabar yi hmm. comme que Macky Sall dafa tam bu défé discours à la nation après day sékh ak yéen laaj ak tontu ci hmm. euh, euh, cokkaas ngeen ko ci problème boobu ne ko lo ci xam ci ciow UNESCO bi doon bëgg duggal mbirum góor jigéen ba syndicat yeeg société civile ak organisation islamique xeex ko ba UNESCO daw lo xam ci lolu mu ne bu fekkee ay projet ak i financement que ko bëggee conditionné loolu nañu yóbbu projet loolu laa bëgg mu jëmmal ko projet de criminalisation bi mm. comprendre une fois pour toutes su na parce que Fonds monétaire international yorul suñu añ yorul suñu yorul suñu <laughs> banque mondiale kazalika mm-hmm. ki yor suñu añ suñu reer mooy suñu borom subhanahu wa taala te moo ko wax mm-hmm. te moom lu wax def ko du def wax waxet mm-hmm. nee na walillahi xazaa'inu samawati wal ard mm-hmm. les trésors des cieux et de la terre ci sama loxo la ne man subhanahu wa taala waaye dafa am lu mu ci dolli de nee na walakinnal munafiqina la yafqahun nee na loolu malheureusement les hypocrites ne peut pas le comprendre waxuma ne hypocrite nga de mooy naafeq yi alors bu ko defee man garaawul loolu <laughs> loolu eh. na ci jéem a ngoy mm. ah ndax ñii wax naan Euh, comment dirais-je euh, euh, jar da wax sax du chantage ils vont nous faire xam nga ban terme la utiliser sax mhm. voilà boycott économique ak yooyu mhm. xanaa duñu ñu yalla ana yalla dans tout ça mhm. mais mais mais Mamatar est-ce que on on on bi ko toll manam xam nga day ñun suñu autorité bo xolé ñom ni ñuy doxé Mamatar yow yaay dox yalla man mi peut-être la keneen ñu ci mbedd mi la majorité des Sénégalais andu ñu ci lool mais ñi nekk ci kaw hein des fois yéen da nga leen tudd diine mais ñooñ dara diine mën nañ ko wax ci kaw ni mais est ce que ñor na leen vraiment est ce que yéen ñu ngi ci même ligne que yéen dañu leen gis loolu waral nag loolu waral contrairement ak yeneen loolu waral contrairement ak 2007 bi ah. criminaliser le délit de trafic de drogue mm-hmm. Bi dañu dem waxtaan seeg suñuy wasila mm-hmm. <laughs> tous les khalifes généraux du Sénégal signé nañu mm-hmm. ku ci mel ni sëñ Mountakha Mbacké Bassirou mention spéciale parce que moom signé signé deful semblant signé waaw dafa signé eh. jël beneen texte bindo ko ci arabe mhm. li de yi di wax exposé des motifs Madame, di expliquer pourquoi mbir mi ñor ko mhm. lan moo mu lan mhm. d'accord à mille pour la criminalisation de l'homosexualité sëñ euh, Babacar Sy Mansour Kazalik dafa signer. ba pare def euh, exposé des motifs Ndiassane non, Tianaba, Nyasen, Medina Baye Lion. démb lañ jógee ci famille omarienne euh, Thierno Madani Tall. et l'église léegi nag église jox nañ leen texte bi waaye delloo dellooguñ ñu ko. waaye recevoir nañ ko amagu leen réponse église. am waaw ñu ngi xaar retour bi. Hmm. alors ba ci suñu mbokk yi nekk dans le bois sacré ñoom donte le tënkuwuñu ci injiil bi yonent Yàlla Iisaa tënkuwuñu ci alxuraanu karim ñoom seen bopp nee nañ lii bu dul dara sax ngor rek. Hmm. principe bu ngor tout court xel mënul nangu. loo xam ne xaj yi ruus nañ ko sax def léegi ci mbedd mi. ay doomu aadama di ko def. Mame Matar lan mooy seen différence ak cadre unitaire de l'islam bii dox ci jàmm ci réew mi. waa cadre unitaire lan mooy seen différence ak ñoom parce que élection yi mi ngi ñëw ñëpp di sàkku jàmm. Euh, jikko yi ci la jikko yi bokk na ci ni askan wi dundee internet bi saaganteeg ñàkk teggin kilifa yi euh, y a des yoo xam ne peut-être yow personnellement di leen si dégg mais ànd si am jikko yi lu may franc-maçon góor jigéen bari na ci lu yàq jikko yi mi ñoom du leen ci dégg waaw xam nga cadre unitaire de l'islam xëy na ñu bari lu ñu réeree mbir mooy Jamra membre fondateur la ji hmm. bañ koy sos fii ci maison de la presse Jamra nga toogoon. Hmm. voilà bi ñu paree nag ñu tànn ci suñu biir koo xam ne doy nañu ci yaram ak tegginam muy sëñ Cheikh Tidiane Sy Al Amin hmm. mu nekk le coordonnateur. man ànd naa pour cent ak seen démarche. Euh, parallèlement aussi am na kuréel boo xam ne fii lañ ko sosee woon. maak seen imam bi Cheikh Tidiane Diop.

mën na tukkil àdduna kon nag ñi ay àttekat lañu ñu ngi leen ñaanal succès. ñaanal est-ce que danaan nan ànd ci jàmm loolu la kilifa diine wax ci réew mi di ko askan wi quoi ñoom la ñuy waxal askan na askan mi ànd na jàmm am mais est-ce que diine Sénégal ànd nan pour mën a songu dara daanandoo ko. ah waaw la preuve nettali naa la sànq ne. Hmm. Euh, Jamra da daan dem di xeex côté euh, la Ligue des imams et des ulémas bu Oustaz Dame Ndiaye. Hmm. dañ daan xeex seen côté le rassemblement islamique bu Oustaz Makhtar Kébé noonu. léegi nag dañu ni parti politique yi def. noonu la ñuy def. dañu am suñu coalition bu tudd ànd sama jikko yi kon daal euh, kii boobu nag coalition boobu moo ñu may doole jii ñu am tey ba hmm. tous les xalifes généro signé nañu. alors léegi nag bu àllarba. Hmm. dañu koy yóbbu. Hmm. solennellement teg ko ci loxo député yi. duñu yem ci loolu. bu que député yi dugalee ba bureau assemblée fixé datu plénière bi. dañuy ñëw toog. Mhm. parce que loi permettre nañu. ngeen pendant voilà amna amphithéâtre bu nek ci kaw. Mhm. da ngay def demande fofu le grand public di ne. Mhm. fa la ñuy ñun. yoré bic ak feuille. fotol leen bu ñu quels sont les députés qui sont pour la criminalisation de l'homosexualité ñu ay diw diw ñu noté. yan député ñoo contre ñu noté. pour que buñu paré bu campagne élection législative en juillet mais duñu wax tur dañuy compter rek ñu

ni ba ñu noté ñu voté wul. Hmm. Hmm. campagne électorale législative bu tijé hmm. et c'est notre droit le plus absolu. parce que député falul bopam ñun askan wi ñoo leen fal. jox leen salaire bu baax. auto 4x4 et des centaines de litres d'essence dañu wara jaamu suñu soxla ñun. alors bu ñu amee liste ñi voté contre dinañ battre contre campagne wax askan wi ne de yéene leen falon ñu ngi nii bokk nañ ci ñuy jàppale góor jigéen ñi comme ça électeurs yi mën leen sanctionner parce que nekk luñ fa ngor nekk luñ fa diine waaw voilà loolu na ko député yi dégg du ñu déposé rek yem si waaye ku bootewul dinañ ko xam mais si toutefois la waa loi bi paasewul nag loi loi bi day jàll parce que sëñ Muntaxa mënul wax li wax ba noppi sëñ Babacar Sy Mansour bind ba noppi wax li wax te bu mu ñor leen parce que dañu bind une page Njaasaan Janaba Ñaseen Medina Baye la noonu kër yëpp bind ah député yi def leneen ah su boobaa dana àllarba sax yéen ngi dem mais kenn xamul lan ngeen fay fekk waaw <laughs> ah, duñ ko fekk dara lu député yi nga xam ne ñoo ñu war a gàttandu recevoir projet de loi bi ñu teg wala léegi li ma la bëgg a leeral nag waaw porox ndol la bi nga xam ne porox ndol la boobu nag Mamatar temps bi jeex na waaw moom lay <laughs> porox ndol la boobu nga xam ne ci la borom layam-layam yi daan jaar di libéré goor jigéen yi nga xam ne tooñ nañ ba yoon teg leen loxo mhm. fatt nañ ko parce que maa ngi lay fàttali góor jigéen ya nekkoon ndar. euh toj tej bañu defone Kaolack. Mm-hmm. Euh, di fa tak sey guddi mawludul nabi dañ leen japp 72 heures après. bàyyi leen mm-hmm. sa naataango yi ba demee tendre micro le ministre de la justice de l'époque époque. Sidiki Kaba waaw mm-hmm. ne ñi ñii lu tax nga bàyyi euh, le commissaire Bokar yi def na liggéey bu mucc ay euh. boole na ci ay preuves. Mm. rax ci doli flagrant délit la. robe de mariée yeeg bague de fiançailles preuve yëpp ngi lutax ñu bàyyi leen lan la wax l'article 319 en fait ne ne prononce pas spécifiquement le mot homosexualité l'article 319 condamne les actes contre nature parce que avec des professeurs de droit et des juristes de métier nous xam nga hmm. acte contre nature il faut citer nommément les infractions l'article 319 criminalise l'homosexualité

dinañ teg projet de loi bi ànd ak ay kilifa yu mag a mag yoo xam ne dama koy garder secret pour l'instant waaw teg ko ci loxo Mouhamadou Lamine Diallo teg ko ci loxo Moustapha Guirassi waaw teg ko ci loxo Cheikh Bamba Dièye ak l'honorable député Aliou Souaré am na yeneen une dizaine yu bab mab ci ñëw ma jox la scoop. Mm. laan ñëw na Abdoulaye Wilane alors ñooñu ci seen loxo lañ koy teg ñu leen ko joxee nag ñoom ñu yóbbu ko bureau assemblée li leen di ñaan rek bu ñu programmé plénière bi na ko na ngeen ñu ko teel wax ndax ñu mën a def liste député yi voté contre bu législative yi ñëwee ñu battre campagne électeurs yi dàq leen. sant ñoom jërëjëf merci beaucoup ñu koy ñaanal wér ak jàmm. jërëjëf lu ma leer mooy bari na député yoo xam ci bis boobaa dañuy porté malade. <laughs> doy na waar ayca jaajëfal nañu la Omar jaajëfal Mame Matar di président ONG Jamra ñu koy jaajafal bu baax ci disponibilité bi ñu dem régie jël euh, musique Sandiog ñëw ak ñun ci li mu indi.